Matar Sarr CNTS FC force du changement ñu ngi le secrétaire général Cheikh Diop di féliciter sa sa syndicat yëpp yi ñu àndal ci élection yi euh, di rafetlu euh, jàmm ji fi am nit ñi ñëw jox ndànk woote ndànk ñibbi ndànk ci jàmm ak salaam mais tamit naqarlu rek tey euh, coono yi ñu jànkoonteel ndax benn centre de vote bi am Mbacké centre boobu am ñeenti bureau tey boo ñëwee fekk fii tey ci jour ouvrable euh, rang bi ni mu demee ak ñi nga xam ne ñoo voté si jóge ba Taïf voté si fii jóge ba Kayel voté si fii au moins Mbacké di capitale euh, deuxième capitale euh, du Sénégal daanaka ci buñ ko waxee ci terme population démographie loolu moo méngoowul ak dëkk bi biñ booy organiser da ngay organiser lu méngoo ak dëkk c'est lii moo nekkoon suñu position ci naka jekk euh, jàpp naa ne kon liñ fi waxoon euh, tey gis nañu difficulté bari ah, bari na ci liggéeykat yi pour ñu wote ma ndax euh, bureau de vote yi tuuti na centre bi polarisé li mu polarisé dafa bari ba tax coono yooyu yëpp am te liggéeykat yi ñëwaguñu ba tey Touba benn centre moo accueillir hôpitaux ya fa nekk ak para secteur yëpp loolu tamit méngoowul ak Touba Euh, ñuy wax administration bi bu ñu collaborer ak euh, ñi nga xam ne ñoo fi dëkk di fi exercer dinañ leen te bu ñu leen proposer ñu gëm ni dana baax loolu moo am solo te yaakaar naa bu ëllëgee dinañ ci bàyyi xel organiser ko ba ñëpp mën a rafet nañ njort tey ne CNTS FC dina am ndam mu yaatu parce que gis nañ si suñu camarades yi syndicat yeneen yi bari nañu. ci ci ci ñi fi ñëw par rapport ak ñi fi ñëw bari nañ ci kon am nañ yaakaar bu baax a baax waaye li fi ñëw te mënul voté moo ca suba ba ñibbi euh, léegi am na situation bu ñu solution bu ñu préconisé sax buñ ko xëyoon def ca suba teel ba kon ñooñu ñëpp danañ voté tamit kon ñu gën a am yaakaar ndax représentativité moom dañu war a fexe ba mu yaatu mu ñu mën a am ay résultats yu exact